salaamaaleykum. waaleykum salaam. sànq laa gis. alhamdulilah ana waa kër ga. mais damaa ñëw fi ak xool bu nakari lan mooy problème bi man dam laa jox sama doom seen waa kër laa may doom seen waa kër laa may jabar mais.

morom yëpp dañuy togg ba mu baax yàq ñëpp mais moom heure bu toggee dañ koy jël tuuri ko te wax dëgg yàlla neexul ku sañoon jabar ci ñi en tout cas dama bëgg góor prends tes responsabilités parce que tout simplement yow laa may soxna ndeyam loolu la mel maa koy jëlal ku koy koy waxoon naa ko tey résultat yi nga noonu sa yaay mooy sa kilifa waaye sama doom yaay kilifa bi la ko mayee nga ëpp kilifteef ci moom kéem mon jëla ses responsabilités comme waxoon naa ko sa yaay mënul togg waaye gàcce la mu ne ma noo garaawul jëla ses responsabilités teg ko ci yoon c'est tout ce que j'ai à te dire d'accord sama yaay sama waajur la donc mënuma ko jéggi quoi mais incha allah dinaa gën a waxtaan ak moom. de toute façon prends tes responsabilités. incha allah. ma jëkkër ji nag yaa sañ sa nag. ah mais gis naa la de. def nga. benn xale bu la ko tay. non ñemewuma lool nan lay ànd ak yow di xool kenn. moo ma jaaxal. Ah. da ngaa boo eh. fulla kaneen xool la boo fa amoon fulla rek boo yegg du ko la ndax sa jabar baaxul bu dee dañuy di génn ngeen toog ma wax ak yéen bala ngaa dem. Baye yow laay waxal. ñëpp dañ ni la doomi ndey nga nga bëgg ma am foo ma teg respecté ma xam maay kan waaye sa jabar ji bon na xamul maay kan bala may wax mu tontu ma lu ko neex la may wax bu toggee kaani ba mu saf sat xorom ba mu saf sat su ma waxee mu ni ma dëggee tontu ndax lan jëkkëram moom na ko moom mën lu xam ne man dama am tension waa kër gi yëpp seede nañ ni heure bu ayee duma lekk pour lan la Ya ko ko sante ki dama bëgg nga door ko bu mu tedd xamal ko ni ko maay sa bu jare saaga nga saga ko bu mu yux xamal ni ko maay sa ndey kan doonu baadoo la jóge ca gàjj ga ñu indi ko ci kër gi muy lekk di naan di tedd ci néeg yu baax ha ah, lool la ma yabe dafa fatte ni kër bayam da daan root tay bojj fi bu ñewé ubi ruba ni ubi frigo man damay mom ñaata yoon ki ne ko may kan la la wax ne ko reul ngàdd ni ko ki sama yaay luma gis yow waxal Yeah. Kani gi muy kaani ndab bi togg bi lépp dëgg la tontu yu metti yi mu lay tontu yëpp dëgg la li nga fi wax yëpp que ni moom moo la def ko moo la wax dëgg la ko waaye yaay kii sa doom la comme ni maman nekkee sa dom te yaay ki dafa bàyyi li gëna fort ci mom dafa bàyyi ndayam bàyyi bàyyam maga maki rakam ñew sey ci sa dom waaye yaay boobu teraanga bu lu ko nit dang ko wara fonk te yow da doon wax ne dang ma bëgg kuma ma bëgg ku nekk bëgg nga ko té mom bëgg na mi bëgg ko te gis nga ni koy gisee ni vraiment naqari wala naqari wala waxal ku neex waxal la ah, bu defatee lu deful wala mu def loo xamante safaan bi la woo ko woo ko ba mu ñëw nga ne ko nee tuuti li nga xamante nii moom nga def bu ko defati bu ko defee dina la dégg. te dootu ko defati. mel ne tuuti yow kuy sa nene tuuti ki nga xam ne la juróom-ñetti fan moy sa nene tuuti da nga foog ni gisuma carnet wala gisuma carte d'identité yow yaay yambar yow ya xamadi aduna ak sa sikimu posé bi nga yor nga xam ne danga diw produit sa bay na ba dé amul sikim yow foo ma toppee yow yaay ki ma yaakaar yow yaay ki ma damay fajal ay rangoy yow ñi ci kër gi sax gën yow man ngay tutal man nga naan seet yow man ngay peeral yow ndax sa jabar ji waa doxal ñu dem yow yaa bon yow yaa yées yow yaa ñàkk jom yaa xamadi àdduna waaye nag sa loxo lay naaj. gi. yëgoo ko yow lan nga ma waxoon néew ma woon xale yi nga leen woo wax man lan moo tax benn doom respecté wu ma lan moo tax ma di ëmb sama doom yi fa ma leen wasin leen kenn respecté wu ma ah mënumaa fexe ba am ci kër gi jàmm du góor du doom ñoom ñëpp daal ñaanandoo rek di ma xeex fan lañ ko teg te yow ngañ sey fii nga ñëw ma kalaame la xale yi ma di nga wax ak ñoom te nekk te fan nga ko merde lay wax yow suba man xamatuma sax lu ma lay wax man fi mu toll ndax ndax jàngaxee ngir yow jatu jatu yaa ma sonal yaa ma lëjal ah yow jatu lan la yow lan la la xale yi def tey Baye Ndiaye suba Aziz tey jabari Baye Ndiaye suba jabari Aziz ah nga ne yaa ngi ne taxaw ni di ma di di ma xool xoolal man du sa morom jox ma cër bi ma yàlla jox bu jëkk balaa mës wax ak man jatu da ngay sëngee ya. waaye léegi da nga noonu faj jàkkaarloog man li ma wax ni waxuma ko ngir bëgg lu la neex waxuma ko tamit ngir tuutal sama yaay waxuma ko ngir ñàkkal ko fayda wala wut lu ko naqari gis nga wax ji ma ko wax bu mu tax benn yoon nga def loo warul def wala nga wax ko dama bëgg lépp loo war a def na ko def yaa ngi may dégg. bu koy def yi mu yóbbu ko rek kii ngañ la. man la waaw. waaye nag di màndikat. <laughs> mandikat bu maget nga say nak naaj bi tàngee nga wat waye man faalewu ma la ah da ngay ñew ci kër gi xalé di la ger motax suma la yoni ci sama doomi nga ñew taxaw def la la neex anando ak ñom man faalewu ma la faalewu ma leen waaye nag maa def man ni fekk ya, ya, ku ta li jënd sa kër bëgg li jënd sama kër kontewu ma la li ngay li ngay rambaaj li olaf ndjay di wax deug la bokku nday bokku fanan ci neeg la bu ñu yeewoo ku ne yër bu dem yo xamoon naa ni dañ ku ku ñu ku ñu ku tayam do ci benn jatuh xalaat da mandi tey. yaa ma mandi. waaw merek ngaa mer rek da ngaa mer rek di yuuxu lu ne nga nga nga aw fa jatu dama yaakaar ne yow fi mu toll nii da nga am problème mu mémoire. yaa ko am yow. jatu te sa mémoire bi yow ah li ma xamal mooy jàmm ak salaam waaye chaque jour nga waxal ci Aziz wala waxal ci Baye lu la def ñoom. parce que yaay seen nijaay maam ci yow yaakaar loolu laa lay woowee ci sama kër yow wooyoo ma sama kër man xamoon naa ne boo dikkee mënoo koo réglé fi mu si tagaram baaj nga xale ger xam nga ma la bëgg a xamal. Eh. sa war a dukkër nag fi téye sa tànk bul fi ñëwati bu fi tegate sa tànk man sama kër mat naa fi góor mat naa fi jigéen. yow man nga génn sama kër. ban damaa génn tey génn mu ëllëg bàyyi jaay laa xaar fii sama jarbaat bu gore boobu ku baax ku xam ku xam cër ku ma respecté jigéen bari na te bokkul i Pojo ko sama yaay moo bëri problème dëgg bariwuma problème lan moo tax jotu ndaw bu ayee kenn du ko dimbali ku ci sa jabar ayee ñu daal di dajale li nu am jox la nga yokk jotu mu ndaw bu ayee ñu di ko seetaan réew. yaa dañ maa kompaloo. kenn du réew. <laughs> yow jatu dalaa liggéey de. kenn du réew jatu liggéey na la de. waaye ñun dañu la réew. waaw dama ne juguma juguma réer laa leen wax. kenn du fi réer. damay juutu man maanaam pourquoi mu juutu. maanaam lu tax muy juutu. moo tax muy juutu.